européenne bu Sénégal moo ko xamle ci cérémonie bi xam ne doon nañu ko amala jëm ci wàllum lancement taxawul lépp loo xam ne jëm na ci wàllum transport Sénégal ak lépp loo xam ne lu koy doxal la démb la ñu doon amal cérémonie boobee sa la ñu ko xamle bu Sénégal li muy ñàkk ci accident yi loola maanaam téeméer la juróom-benn fukk ak ñett ci ay milliards yéen kaay gi di Sud Quotidien wax ci scandale yi nga xam ne moom la ñuy faral di ko ci ñi civile bi ñu koy càmbar yéen kaay gi di wal fajri nee en tout cas li am ba des mooy scandale yi ci assemblée nationale daal bëri lool waaye nag li nga xam ne moo jaaxal sénégalais yu bare bari mooy njiitul assemblée nationale nee ma Niass Koumba Abdallah Moustapha sa jamono ji dafa noppi ci mbir mi maanaam silence rajo pata pataaral gi nga xam ne Moustapha Niass def na ko ci giraawal yi nga xam ne moom lañ nemmeeku ci assemblée nationale loole nag jaaxal na gars yi lool yéen kaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa collectif ñoo lànk ñoom nag nee nañu giraawal yeeg yi nga xam ne moo am ci assemblée nationale rawatina ñu ciy tudd ay député loolee lépp état bu Sénégal mooy responsable te nag enquête bi nga xam ne état bi wax na ne def ko ubbi ci lu jëm ci wàllum Seydina Fall Bougazelli loole nag dafa bëgg ñu fàtte député yi nga xam ne tudd nañu leen ci lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique Mamadou Lamine Diallo nee na jamono ji bëri na ay sénégalais yoo xam ne dañoo ndóol ba maara day taali te ndóol gi nekk ci réew mi Macky Sall moo ko yokk yéen kaay gi du l'observateur daan nay wax ci màggalu gi ak innovation yi nga xam ne moo moom la sëriñ Muntaxa jël ci màggalu Tuuba gi ay innovation maanaam yu yees yu bare bare yu am solo yoo xam ne sëriñ bi sant na ko comité d'organisation bi ci màggalu Tuuba gi bëri na ay coppite yoo xam ne nemmeeku nañ ko sa yéen kaay gi du source ba tey ci lu jëm ci màggalu Tuuba gi Babacar Gueye mi nga xam xamante ni moo nekkoon PDS ay jamono délégation bi nga xam ne moom la àndal démb ci Tuuba daan wax ne Cheikh Bassirou Mbacké Abdoul Khadre daan nay jouer bu am solo ci libération Karim Wade yéen kaay gi de ba tey ci màggalu Tuuba gi réew Mali jënd nag ay nag yu bare bare bare ak i ak i xar fas yéene koo séddale nag ñi nga xam ne maanaam mooy taalibe yi journal bi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu ni ki démb tribunalum ndakaaru toj na ndax dafa am benn jigéen boo xam ne dafa nag songu jëkkëram daal di koy génneel paaka dóor ko toroxal ko ba pare nag dem porter plainte daal di wax ne jëkkëram daf koo dóor ñu daal di jàpp jëkkër ja yóbbu ko ci kasu bi démb lañ ko doon atte waaye nag xale bu jigéen boobee yaayam si boppam ni ki démb moo def ay seede ci tribunal bi ne nag ki nga xam ne mooy jigéen ji moo tooñ yéen kaay gi nee na sanoone nag si la ñu daal di libéré ki nga xam ne maanaam mooy jëkkër ja yéen kaay gi di libération xëy dañu xibaar naan ñu Fatoumata Ndiaye mi nga xam ne moo fi doon prôné Fouta Tampi Fatoumata Ndiaye moomee nag nee na léegi daal Fouta wéli maanaam daal Fouta neex na daal nay wax ne Macky Sall ma ngi liggéey ba tey ci biir bi di Rewmi Quotidien Assane Samba wax ci coup yi nga xam ne moom la ñu nemee ko ci déndu Afrique yi nga xam ne moom la am ak politique bi journal bi nee na bëri na nag ñoo xam ne daal dañuy def ay ay coup d'état ba pare wax ne askan wi moo tax ñu daal di koy def ngir saafara jafe-jafe askan wi waaye nag ñi nga xam ne ñooy militaires yi ñoo ñeen ndax mën nañoo développer am réew ndax loolee du seen vocation surnal bi nee na li ñu nemmee ko dala mooy bëri na nag armée yoo xam ne dañuy def coup d'état ba pare nag wéy di yor réew ma surnal bi ne na jafe-jafe yi dafa bëri ñi nga xam ne tamit ñooy way politique yi ñoom bu ñu nekkee ci opposition bi li ñu lay wax ak bu ñu demee ba nekk ci nguur gi maanaam comme yàlla ak yàlla yi journal bi nee na loole moo yàq jàng yi yéen kaay gi di esat xëy dañu xibaar nañu nag jamono ji am